fii ci Medinatul Munawara gis ngeen heure bii ci jumaa ji ni ñuy waajalee ndogu yi carton yi ay tàndarma la def ay mburu ay soow camion yi gaar yëpp moom la fii ci Médine bu koor gi jotee nii lañuy ñuy def góor ñi ak jigéen ñi nekk ay volontaire ñëw di seddale ay ndogu ci biir jumaa ji donc euh, gis nga fi mu ne nii logistique bi lañuy nekk di wàccee nii pour di ko séddale jullitu yàlla yi nekk ci biir jumaa ji